Ousmane Sonko rawatina Ousmane Sonko ci boppam ndax parti Pastef bi ñu ko créé 2014 ba léegi ciy jafe-jafe rek lan nekk rawatina seen leader bi nga xam ne moo di Ousmane Sonko nga xam ni dund ko ay yoon yoon du benn yoon du ñaar yoon moom mi nga xam ne moo di Ousmane Sonko tool dox digganteem ak Adji Sarr dem wuy ji tribunal dan daan ka jàpp toj li nga xamante ni moo di otoom doyatul ñu sotti ko li nga xamante ni moo di produit yooyu yëpp Ousmane Sonko dund ko ñoom mel ni tegguun seen tànk dem nañ ba daan ko li nga xamante ni moo di ñaari weer yoo xam ne du ko tëdd waaye tamit 6 mois avec sursis tere ko ni ko daan ko ni ko doo bokk ci élection yooyu yëpp Ousmane Sonko dund na ko doyatul li nga xamante ni moo di dernier bi di coogi fin bi ñu jàpp ko tëj ko yóbbu ko fële ci sibi xotaan di ko toppee li nga xamante ni mooy appel la instruction muy lu doy doy waar fan jëm ak Ousmane Sonko ndox amu fa ba tax na moom maître Ngagne Demba Touré muy woo askan wi yëpp ñu génn massivement waaye tamit Ousmane Sonko na leen jaral seen lépp moom maître nga Demba Touré déclaration bi nga xamante ni doon na ko amal ni ki sànq ca mbokk ci part bi di Pastef muy part bi Ousmane Sonko ñu fàttali leen ni seen leader di Ousmane Sonko nag ginnaaw bi nga xamante ni ni ki altine janoon ak siis bi di Maham Diallo daf ko mujjee dóor li nga xamante ni moo di mandat dépôt kon jamono ji ñuy wax ak yéen Ousmane Sonko ma nga ca kasaba si bi xotaan